Amina mu ngi bëgg a yàgg ci àll bi. dem ci xalaas bi njëkk te euh, bu dee euh, temps bi dinañu ko may. te am na tam Amina Poté mii bu dee euh, daa disponible. Mhm. Amina Poté. Mhm. bu dee dafa disponible. donc bëgg dugal. duñ ma ko jox. Amina mu ngi bëgg a yàgg ci àll bi de. <laughs> Amina mii te te te te Ndiaye Amina baax na xeetu baax boo xam ne. Eh, bàyyil bàyyil Amina nag Amina moom liñ bokk bari ma ak moom. moo tax Serigne Saliou ngeen bokk. voilà kon bëgg naa man ngeen boole ma ci. waaw man bëgg naa ci Ndiaye. Euh, euh, comme yéen bokk ngeen Serigne Saliou te xam naa ne boo ko ñaanee dina la may ñaan fexee ñaan ko oh, moom ñu ñaanal ma ko. woote woyoful de. bëgg naa lu diis. bari na ah bon <laughs> bari jalt jalt de. bëgg naa ah, bëgg naa lu diis Ndiaye eh, nanu xalaas bu ñu paree ñu toog ne waxtaan ma am yu ma la wax ci yu bari ci man. nga xam nga xam nga lu lu lu moom taxuma yox mais xam nga jamono ak ni ko yàlla tëggee. Mhm. da ngay gis ñoo xamante ne jii buñ juddoo ba ba ñuy jëm mag. Mhm. jëkkër da leen di të. Mhm. am ñoo xamantene ji dañu am wërsëgu jëkkër. Mhm. heure bu ñu duggee génn genn génn duggaat génn àddunaa ni démé lolu mom braaloo la jaay. ah bon eh, eh. braaloo la moom mii bokk na ci braaloo yi dé kan di amina mi am na braaloo di. non non non braaloo am tax koo gudd noonu. déedéet mais daam ñoo xam dañu ay bra bra dé dé mom xolam la ko yalla di fay. Ah, ah, amina poté ani ah, ku baax na nak amina poté de xolam rafet. né bu ko kenn àtte ci ni muy animé eh beneen nit la. Ndiaye loolu kenn du tudd Pape ah, beneen waaw waaw nit ñi dañuy àtt nit ci ay tile. li muy wane boo ko ko doon c'est comme Kouthia par exemple boo daan booy wax sëgg. Mm-hmm. te xool ko ni mu mel. mais nag euh,